man j'ai fait Tambacounda il y a 15 pour man sax j'avais 13 an mais j'ai fait Tambacounda en 2005 man ba may egg Tambacounda c'était choquant parce que à l'époque da ngay ubbi bunt bi soo duggee rek y avait un espace de garage mais la première chose qui m'avait choqué c'était le cercueil. cercueil cercueil. la ñu teg ci bunt bi. dañu doon ub mais paix à son âme c'était un certain monsieur Ndiaye moo fa nekkoon. le régisseur de la prison nit ku baax ndeysaan paix à son âme man dañ ma jëlee camp pénal 4 heures du matin nga ay kagolewu yor ay fetel ay gànnaay dugal ma ci benn van ñu dem ci yoon bi sax dañ euh, dañ dañ fa def benn accident ci yoon bi ensuite gars yi dëppaat oto bi ñu continuer le chemin on arrivé à Tamba il faisait ay 10 heures 11 heures moins mais gars ñi bu ñu ubbee bunt bi oto bi dugg directeur bi di ma xaar. dama wàcc xool ci espèce su hangar bi je vois un corbillard ma ne mais lii lan la fii du morgue. Hmm? directeur bi dalal ma euh, wax ma effectivement boppam ne man lépp lu ma soxla et cetera franchement merci gàcce ngalaama à l'administration pénitentiaire avec le peu de moyens qu'ils ont ils respectent la dignité humaine. gars yi ne ma maintenant ah, da ngay dem sa cellule ma ne d'accord ñuy dox man xaw à l'époque je connaissais pas euh, la prison euh, de Tambacounda ñuy dox. première cellule bi mu nekk la cellule de femmes deuxième cellule bi ñu ne ma fi ngay dugg ma ñëw dugg xool benn espèce de bu ndaw xool su ma nekk ma ne garde bi mais fii lu tax mu vide mu ne ma fii moo nekkoon la cellule des mineurs. Hmm. mooy ñu amul 18 mais comme yow da nga doon ñëw dañu génne ñëpp parce que dañuy isole toog naa foofu kenn gisuma te gisuma kenn. pour des raisons de sécurité. pendant ce que y' a euh, y' a une espèce de parloir là-bas et ensuite y' a une autre porte buy dugg maintenant dans le secteur et là-bas y' a les cellules man daanoon naa des fois di génn surtout quand il faisait chaud ngay dégg xale yi ci euh, ci kaso yi di doo ci gris jox leen ñu ndox jox leen jox leen ñu ndox. mooy paquetage. waa Rebeuss may dégg au passage nag maa ngi leen di nuyu mais waa chambre waa chambre 10 waa chambre 1 chambre 2 chambre 3 chambre 4 lu fa am dafa jéggi dayoo xalaatal benn pièce 60 mètres carrés nga dugal fa 200 personnes paquetage ça veut dire que soo amee place soo tëddee soo jógee ñàkk na place jooju amul damay dem toilette amul dara dañ lay paqueté mais Bougane Gueye Dany c'est pas n'importe qui dans ce pays tout de même il faut arrêter il faut arrêter quoi Et je remercie au passage la société civile, particulièrement les droits de l'homiste, qui ont décidé de tirer la sonnette d'alarme. Et si ça continue, on va saisir le Parlement européen et le Congrès américain. Parce que qui puis... S'il le Sénégal n'est éligible au fond du Millennium Challenge Account que si le Sénégal respecte les critères, dont, les, euh, les critères liés aux droits de l'homme. Bougan Gay Dani n'a rien à faire dans une salle paquetage. Amou, Amou, faut de et puis amul dafa am dafa mel ni Sénégal l'histoire se répète euh, huit mois neuf mois euh, derrière euh, les euh, les les responsables de PASTEF dañ doon critiquer la démarche de la gendarmerie de la police Ousmane Sonko dans ses prises de parole doon tudd carrément ñoom yàgg ak ñoom Moussa Fall ci euh, niñ doon doxalee moom jàppoon na ne waruñu doxalee noonu doon leen sax doon menacer tey aujourd'hui la gendarmerie la police se retrouve euh, tamit au centre euh, des, des des actions politico-judiciaires euh, euh, les forces de l'ordre se retrouvent à exécuter les mêmes zones Abdou Karim Diop qui était procureur de Dakar qui avait prononcé l'acte de mise en accusation de Ousmane Sonko lors d'une conférence de presse euh, muté à Tamba Abdou Karim Diop mi ñu doon critiqué parce que la mu daan def procureur euh, nu mu tudd tribunalu Ndakaaru ñu de ko Tamba et puis lui aussi il exécute les les les, les mêmes ordres euh, qu'est-ce qu'on doit y comprendre ce qu'on doit y comprendre à l'endroit de ces personnes c'est que ñu fi nekk dafa am ku ñu remplacer du noonu ñoom bës ci bës ci tamit dinañ leen remplacer dañ ko déggee noonu on dirait que rien n'a changé m'a fait une confession balaa ñu koy yóbbu à la prison mu ne ma durant tout l'interrogatoire le procureur ne l'a pas regardé une fois dans les yeux Hmm? pas une seule fois te loolu gémmiñu Bougane sama nopp te Thierno Bocoum est témoin ainsi que Pape Djibril Fall il peut pas regarder Bougane dans les yeux parce qu'il sait très bien que lu muy def du dëgg du yoon moo tax ma ne man du ma wax ci waxu magistrat yi la décision de la prise d'otage de Bougane Gueye Dany mi ngi bàyyeeku ci Mimi Mimi Boye xale yi di ko way tonton Mimi parce que c'est un rancunier xam nga sànq sax nee naa la bon c'est un petit mec moo tax ñu ne PM mais il y a des actes qu'il pose en tant que PM c'est une pourriture du moment